agsi nañu police waa commissariat bu Golf bu gi quinze ñëw nañu bi ñëwee agsi nañu daal di ñëw ñoom it def seen liggéey nettoyé yëpp def nañ ko mu nekk loo xamante ni ñoom ñëpp insha allah rabbi enquête bi ñu ngi koy wéyal dinañ xam lii fan la jógee ak kan boo xamante ni liggéeyu yoon la li si des nag mooy ñun Cambérène en tant que commune dinañu taxaw en tant que adjoint au maire. Mhm. maire dina ñëw gis li nga xamante ni xam nañ ka nettali nañ ko wax li nga xam ni mhm. moom lañ fi jot gis moom lañ fi jëlee aussi. Mhm. li ma commissaire bi wax. moom dina ci yàlla matuwaay. mais pour dire que rek Cambérène kenn mësul ñeme def lii. kenn musu ko ñeme dem. Cambérène ki ko def Cambérène la dëkk loolu nga jot. non jamais j'ai pas kenn musu fi def ay ñawteef yi laa ndax kenn musu mu def parce que ñun mayuñu leen lenn buñ ko defee da leen di jàpp leen ba dañ fii ragal dugg léegi nag lii xew ba nu xaw ñeme fii léegi ñun dinañ jël seen yu matuwaal mu jël ci moom wala dara non non loolu nin ko fekkee lan ko fekkee jël nañ ko yóbbu nañ ko hmm. sapeur yóbbu na ko donc désinfecté nañ lii bi mun dañ ko doon defee jeex na ñoom dañ def seen témoignage yi nga dégg nan la nan la nan lañ ko defee fii non man nag mënu ma témoignage li ma li ma commissaire wax laa leen wax ku jigéen la liir la bu jigéen yóbbu nañ ko ñoom dan def seen enquête mhm. loolu la jërëjëf